làmb ji boo xoolee tey combinaison yi ni mu nekkee euh, boo ma doon tànnal mbër yi ci mag ki ci dàq bëre tey boo ma ko doon wax kan la. non VIP yi nag man jàpp naa ni sama sama yaa ma posé question quoi question la rek taxawuma fi tamit comme supporter non fee taxawee comme. Eh, man maa la laaj waxal rek. li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma kii daal Eumeu Sène man jàpp naa ne moo leen daax a bëre. Eumeu Sène waaw. lan nga gis ci moom. non xam moom. dafa man lu bëree bari ci bëre mun naa ni sax mën na lépp ci bëre mais ñeneen ñi mën nañ bëre trop yaa ngi may dégg mais dafa am luñ mënul loo xam ne ëmma da koo man loolu moo waral mu dàq leen a bëre yow ëmma bu làng gi dalay da lay song si de lépp lay bëre barke alxuraanu karim man bare naa ko trop. est-ce que ko est-ce que nekkul ci ni ngay waxee nii dafa mel ni ëmma seen sa idole yi la. non ko de. barke alxuraanu karim man amul kenn ku may roy ci bëre. Eumeu Sène maa ko daax a bëre fuuf mais da ni ma VIP yi nga ma wax nga ma laaj ku daax a bëre instant yi nekk gu ma VIP nag mbër mu ndaw laa loolu moo tax ma cité la ko fu mu toll ci bëre xam na lu mu ci war a def te li may wax ñi xam làmb bu fekkee ñi may déglu ñi xam làmb dinañ xam ne li may wax dëgg la seen Sène lim man ci bëre moo bari Balla Gaye kenn daax koo bëre mais dafa am loo xamante ni complet wul Modou loo noonu mais Eumeu moo complet nag. Eumeu Sène dafa bëre woon ak Lac de Guiers. premier combat ñu nuyul stade Demba Diop deuxième combat bi Eumeu Sène daan ko Père Gaston tëggaat ko mu nekk troisième komba combat boobu noo ko gisee. waaw Eumeu Sène ak Lac de Guiers nag combat bu neex la quoi combat bu neex la waaw ku ci entraîné wul daal xam naa ne di nga am mbetteel ci bis ba daal les jours yi ndax démb gis naa leen mooy bi moo doon def face à face moo jën kay rek démb gis naa leen ñoom ñaar ñëpp ko waaw mais instant ñoom ñaar ñëpp ngi ci forme quoi waaw di leen wax ni que le maire rek. man moom mbër yooyu moom aw ma ci mbër quoi mais damay wax li nga xamante ni moom laa gëm quoi faaw ma ci kenn tamit. Modou mu ngi fi. foo ko bàyyi. muy gàlle. soo xam fa dem léegi jël. waaw loolu nga war a def sax. Euh, mais damay ñëw ci combat moodu moodu fi mu toll nii ci làmb fi mu toll gis nga jël na xale boo xamante ni euh, dafa nekk ci làmb am doole mën a bëre am mystique euh, combat boobu nan ngeen koy waajee. waaw combat boobu moom ñu ngi koy waaj comme yeneen combat fi jaar rek ndax mun naa ne yeneen combat fi jaar moo pon pression moo gën a metti combat bii nii de. xale ngeen am de xale bu weex doomu kayre doomu gaynde gaynde dañuy bañ grand bi defaat année balance rek te mbër moom année balance bu bëri da koy yàqu quoi ndax li nga war a entraîner dëgg ko entraîner loolu bañ a année balance ñu booleek moom ndax ñu ñu waroon bëreel dañoo am combat quoi loolu la rek mais du combat bu métti de buñ ci defee liñ ci war a def lépp du combat bu métti de. te lépp dañ ko ci def sax. mel ni ñuy wax ci làmb yëpp nee nañ grand contre petit la. non du grand contre petit ay morom lañ rek moo daan tax xale bu ndaw la musul def gisement 4 avril 88 la barke alxuraanul karim man may 91 ay xale yu ndaw lañ jën kay ret moo da mag magu ko de da koo njëkk a bëre rek mais magu ko. ñoom ñaar nga yaakaar ñu ci bari ci làmb bu ñu xeexee. avantage kan la parce que Diène Kaïré day xeex gauche moo Modou Anta dafay xeex euh, moom est-ce que dina joxe gauche droite bi. non Diène li des ci moom dafa bari sax yow li des li des ci moom daa bari de mais nag kenn du dem guerre di wax say arme quoi mais tàngul de. moo gën a yomba daan ci làmb ji. gisoo ni mu koña ba daan déggoo li ma la les jours yi maa koy conseil maa koy conseil ta fi ma koy ma koy wax jaar fa bu fa jaaree benn voyage la koy def du sax am seconde. neexul ba neexul mais ba laay gote boobu gën a neex ci bëri ba yow Modou Anta jiitu la ci làmb gën laa xam euh, alentouru làmb bi yëpp gën la xam angle yu baax yi ëpp la mystique dàq laa bëre dàq laa xeex gën yaa koy jox kele bi. non maa koy jox kele bi yow yow yow seetaan nga samay combat yëpp amul bu ci def yaa ngi may dégg. man ak Pape Ndoye rek moo ci yàgg ak Ousmane Gandigal mais yeneen yi ma daan yëpp amul bu ci def trente secondes wala une minute loolu lu ñuy jàng la mbër da war a am tey jii pour tey damay ñëw kii bëreeg moom bëre personnalité du ma fi nekk sax di teg moom badar di ko door muy fayu ñu naan bëre naag yooyu danga ngay am loo xamante ni da nga naan tey damay ñëw rek jeexal ko mu jeex damay résumer combat bi loolu nag mbëri ko am bariwul mooy li ma la doon wax sànq te loolu wax moo a bëre gaay waaw moom tey bu ñëwee bëgg jeexal làmb ji rek kut koo kut man am na loolu quoi am na bëre boobu noonu. maanaam bu bëggee mu gaaw mu gaaw bu bëggee mu yéex mu yéex bu bëggee mu yéex mu yéex. moom moom même booy bëreek moom te bëree woo sax làmb ji da koy animé gis ngaa gis combat Eumeu Sène bu naqare amul. day animé bu fekkee da ngay bëre day bëre bu fekkee bëre woo day bëre loolu moo tax moo wax la li ma la wax sànq mais am na mbër yoo xam mën nañoo bëre trop mais ñu ñëw rek jeexal làmb il fallait que ñu def erreur ci seen biir bëre ba pare door la daan te loolu nag bu fekkee da nga koo am doon mbër ba pare complet woo waaw loolu laa lay wax man am naa loolu muurante am na loolu bu ñëwee bëre personnalité lay bëreeg moom lim indil caat du ko may mu dóor du ko may mu def dara da koy jàpp rek tëral ko ceew aw jeex waaw ñu xam ne duñu ay génération quoi noonu la dem. dafa am loo xamante ni dama koy gis ci écurie yu bari eh, mais du ma ko gis ci Thiès parce que Thiès tey dafa bëri ay écurie mais dafa mel ni écurie yi nekk biir Thiès yëpp. Euh, ku ci nekk bu la làmb booleek sa moroom da ngeen di bëre loolu lan la. waaw am na ci écurie yoo xam ne moom dañuy bëre suñ biir. mais ñun ñu bokkee zone nale zone Mbina Fall bi. ñu nag écurie bëgg sa waajur bu ambulance. moo nekk te defil bi ñooñu lañ dul bëreel quoi. mais yeneen écurie yi fi ci des yëpp dañuy bëre. ñun ñooñu rek ñoo dul bëre mais ñun ñi ci des ñëpp dañuy bëre suñ biir. ndax tamit ñun ñoo war a mën a bëre suñ biir pour génn suñ bopp. buñ fi toogee di def coalition Thiès du du ay du ay kii. du ay koñak yooyu dëkk la. il fallait que ñu bëre suñu biir te tey jii amaana ñun làmbu Cees waaw di profité ci occasion bi di sant Sidi Diakhaté di ko gërëm ndax mu ngi ñuy jaay ko buñ ñu xamee tey ji ba ñuy yóbbu Ndakaaru di ñu tëgg ndax moom lambam day am média day am lépp maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm mais ñun ñoo war a bëre suñu biir ndax tey jii senegal làmb boo nee Dakar première Thiès nga naan deuxième li muy tëgg keneen tëgg ko ku dul Dakar kon ñun am na luñ def ci làmb loolu moo waral ñuy bëre suñu biir pour mën a génn tamit dem bëre ji Dakar ak yooyu. gisee ñeneen ñi nga xamante ni tey dañuy def ay cent pour cent comme tey boo gisee cent pour cent Pikine cent pour cent parcelle nga dem Pikine lu mat vingt sept écuries nekk fa nga dem parcelle lu mat quinze écuries nekk fa nga dem fu mel ni géejawaay lu mat vingt cinq écuries nekk fa ba pare écurie bu ci nekk ñu ne duñ bëreeg seen morom te yéen ngeen bokk dëkk cees te teewul gëm ngeen ni lii sport la làmb moo ñuy boole benn tàkkusaan la ñoo bokk cees bi ñuy defendre waaye nañ ku nekk bëre sa morom parce que affaire de écurie la ban gis-gis nga ci am en tant que mbër. non loolu moom man rafetlu ma ko quoi. man dama jàpp ni koo bokkalul koñ. yaa ngi may dee gis ko war nga a bëreeg moom mais loolu ñoom lay coûter cher rek ñun moom Thiès lañ dëkk buñ fa nekkee di defi coalition ki affaire yooyu ñoom la rek ñun day tax ñu am ay adversaires yu bari rek yuñ bëril loolu rafet lu ma ko koo koñ pour man danga ngaa war a bëreeg moom làmb ji am ambiance ay combat jànq am combat enjeu am mooy loolu mën nga dëkk ci koñ bële sax kii dëkk ci koñ bi ngeen jigante mais da ngeen war a bëre Zos ak dañ doon bëre Papa Sow doon bëre te yooyu noonu da jaay làmb def affaire de coalition affaire yooyu noonu loolu day yàq làmb ji man moom wax dëgg fa yàlla gëwuma loolu quoi ñoo mën a mayante xaalis gars yi dañoo war a bëre te bàyyi faawoon tebeeg affaire yooyu noonu mbër mu bëgg a dem ci kaw warul faa mbër non non waroo sax am esprit boobu ak habitude boobu da ngaa war a indi sa ay bagaasu bopp indi sa yëfi bopp gëm li nga yor ndax yow fi nga toll nii ñoom tolloon nañ ci man loolu laa gëm daal du waxi soxor du waxi dara nag mais man awma ci ku may ci ñoom ñooñu ñëpp kon yow amoo xarit ci làmb. déggoo li ma la xanaa. koo xamante ne sa xarit la bu leen làmb boole woon du ngeen laale yéen ñaar. ambulance daal du ma bëreeg moom. ambulance bu Thiès bii du ma bëreeg moom sama grand frère la. ndax ñoo bokk secteur. ñëpp damay bëreeg ñoom. Thiès gi yeneen igri yëpp ñëpp laay bëreel. ku ma ci làmb boole damay bëreeg moom. barke alxuraanu karim. yaa ma gënal Atou Junior naan du ma bu làmb desee parcelle ak bu desee fii ku ne mu ne du bëreeg moom yow moom dangay bëre moom. non man làmb laa am man damaa bàyyi lépp ndax làmb man bu ma réussirul ci làmb dama échec de damay ñaan sénégalais yi ñaanal ma rek ma réussir ci làmb quoi ndax li ma yàqal dafa bari. waaw lépp la bàyyi concentré wu ci wax dëgg fa yàlla ndax menuisier bois laa te liggéey naa ba qualifié ci mais dama ne ko ñukk teg ko fële di entraîner matin soir ndax lam kon amatul kaf amatul ay caaxaan xaalis rek la ñuy wër. yàlla na mujjee bëre. waaw daa daa bu écrit Texas laa mujjee bëreel quoi. le première mars. le premier mars bii passé. waaw. kon yow ci euh, moment Covid bi Covid bi noo ko dundee yow nan nga doon entraîner ak nan nga ko doon waajal. man kay yàlla ma dimbali man damaa bëre ba pare rek gars yi arrêté. ci beneen dimanche ba lañ lañ tëj lépp. Hmm. metti na. Covid bi moom waxuma mbëri sax mais yow mii sax dafa metti ci yow. bu dara doxatul kay fépp ay metti mais ñun nag dañ cee raw nag ndax ñun ci manifestation yi lañu amee xaalis làmb yeeg yooyu mooy loolu mais affaire yi tëj lépp mais teewul nag ñun ay Baay lañ ñun moom lu ñu yor mën nañ ci dundu daal noonu lañ tarbiya waaw mooy loolu garde dañ suñ dignité daal taxawuñ ci buntu kër kenn di ko fëgg di ko sonal naan ko ay jàpp ci affaire yi metti naag yooyu dañoo toog rek dund def affaire de bayfal mooy loolu lu ñu am dunde ko mu metti trop mais léegi mu jeex. di ñaan yàlla feebar bi jóge fi rek bañ nekkaat suñu activité quoi. yaak anti euh, ku bëgg ku la wéttali ku bëgg fu mu fanaan. Euh, est-ce que ubal bunt bi dina leen boole. non maak anti moom loolu duñ boole man dama ko nawloo sax nag ndax moom daanaan la sampion la communication normal na du ngaaka daal loolu moo tax man nawloo ko pare pour jëflanteeg moom mooy loolu mais li ma koy nawloo nawloo lépp bu arbitre soufflé mooy loolu dama ko fi jëlee de mbëkk rek jàll kay. yàgg na. loolu Anta dina ci wax ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, vraiment ñëw naa cees euh, seet si la waxtaan ak yow mais kontaan naa bu baax ci dalal bi. fii la ëpp di la sant yow tamit di la gërëm ndax li yombul daal man defuma ci làmb ji loo xamante nii sax war nañ ma mën a ñëw di ma jël ay interview yooyu mais dama leen ci sant di leen gërëm di wax sax mbokki mbëri ni nañ bàyyi gars yi bu ñu leen di seet si ñuy aaj ay niveau affaire yooyu noonu ñun ay doomu aadama kese lañ ay doomu aadama nañ oyof daal wàcce suñuy mbagg ndax ñun ak yéen ñoo bokk liggéey bi sans yéen ñun duñ dem sans ñun yéen doo leen dem kon nañuy muñ lante di déggalante di wax ne rafetlu laa lii quoi. yaa ngi dawal promo bi daal. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb euh, Laye Gothé la euh, champion boo xamante ne doomu Thiès la euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité am di leen jaajëfalaat bu baax encore une fois képp kuy seetaan wasaare làmb di leen jaajëfal tey Thiès moom tàng na trop trop trop trop. jaa ngeen jëf ba ëllëg incha allah.